léegi pour dellu si li nga wax espoir boobu dañ ne ku tukki jom mooy tukki waaye fulla mooy ñibbisi ba ma demee ba am loolu rek ba wër ci àdduna bi ba tukki ba xam sama dëkk ne daf ma soxla dama bàyyi lépp ginnaaw ñu ñibbisi suma réew bi ma ñibbisee suma réew lan moo ma indi suma réew dama xool sama réew lu mu soxla ma xam ne politique politicienne du ko defar li defal sa réew mooy nga laaj man lan laa mën a defal suma réew ma laaj sama réew lan laa ko mën a defaral ma xam ne bi may doggonee dafa am loo xam ne dama ko soxla woon te defaluñ ma ko sama réew fii dama soxla woon espoir te aw ma ko woon dama soxla woon ay pont créé luñ ma ay pont d'opportunité dama soxla woon ku ma tette pour ma mën a am métier aw ma woon ku ma ko jox te man ma uti woon ko ba am ko mën naa dem ci biir àll bi dëkk ci àll bi créer point yooyu créer opportunité investir jëmbat ci ndaw ñi. da wax sànq ci sa wax nga ne. Mhm. danga nga ñëw Dakar nga def apprenti maçon. waaw. nga dajale xaalis nga dem États-Unis mhm. da nga fàttali un peu le commerçant du marché Sandaga. Mhm. bi liggéey ba am 5 millions. mu jël ko dem Nica Nicaragua Nicaragua waaw wala Setaaf fii ci Maroc. voilà mu jël ko dem Nica Nica dem Nicaragua moom moom moom moo moom moo xew. nga dem États-Unis mm-hmm. ngay fomp ay taabu. Mm-hmm. États-Unis mën nga fa fomp taabu waaye ndakaaru xale yu bari ba leen ne kaa leen fomp taabu mbaa ngeen raxas bare bale douche hôpital raxas douche hôpital mm-hmm. dañuy bañ est-ce que pour parce que dañoo nekk ci thème pro immigration clandestine euh, homme politique yu bari di culpabiliser di di di di déculpabiliser la la la jeunesse di def dans le populisme di leen naan vous avez raison de partir man bokkuma ci ñooñu. est-ce que 5 millions yooyu boo ko liggéeyee ba boo ko mënee liggéey ci réew ba dajale ko. Mhm. est-ce que boo est-ce que du boo ko investir boo demee dagg sa tool sa toolu maam ba. Mhm. investir ko fa est-ce que du du du jur. dëgg la est-ce que du problématique bi warul doon. Mhm. que kii gagné 3 est-ce que li ñu war a régler mooy kii gagné 300000 mën a lekk prix yi bañ a yokk mu mën a am dëkkuwaay est-ce que xeex bi du loolu plutôt que. ñu naan beneen réew moo ñu may espoir moo tax ñu dem ci réew boobu. waaw xam nga loolu nag problème structurel la moo tax ma dugg ci politique ba ma mayoon nag mën naa ko développé. Mhm. parce que jeune boobu am 5 millions. nga wax mu tabax ko fii ci biir réew mi te réew mi tëddewul noo xam ne boo fa amee 5 millions am nga chance bu gaaw ba nga mën a réussir comme yeneen ndëkk yi. réew bi nettoyé taal boobu nga war a nga wax noonu mu ngi koy def bitim réew waaye li ñu koy fay bitim réew mën na sutura yow fii waxuma la kuy nettoyé table kiy jàngale kiy jàngale suñu doom yi nga xam ñoo war a jàng mënul am lu mu dimbalee njabootam docteur bii faj nit ñi amul lu mu dimbalee njabootam parce que suñu priorité politicien yi moo ëpp nit ñi xaalis moo ëpp sax businessman yi xaalis ñaata nit nga fi xam ñoo xam ne am nañ business ak ñi jóge ci réew mi bitim réew ñoo dellusiwaat ubbi entreprise wala ñu dimbale lañ lay toroxal ba tëj ko ci biir réew mi dañoo am problème boo xam ne problème de fond lañu am Afrique Sénégal c'est quoi le ah, maa ngi ñëw nag c'est bien nga laaj ma question boobu réew mi pour ñu soppi ko képp koo fi mën a laaj indi mu ñëw fii projet bi mu fi mën a indi li ma lay wax ne bu ñu ko deful mënuñu def soppi réew mi depuis cinq ans ba léegi politicien mën a indi mu jox la programme taw ko li ma wax nii Sénégal du soppeeku. lan la voilà maa ngi ñëw. il faut ñu dellu d'abord baykat bi mu nekk au centre de tout suñu économie niñ koy defee mooy. baykat bi ma la wax léegi amul lu mu dundee ndax soixante soixante dix mille lay def man su ma nekkee président dana nekk le cœur de notre économie baykat la ñuy gën a respecté ci réew mi. secteur primaire bi c'est waaw léegi maa ngi ñëw moo tax ma wax la ko léegi baykat boobu dama la ñaan foofu rek may ma fi deux minutes ma explique mu leer ci Sénégal yi ñuy déglu man li may def en tant que président mooy baykat bu nekk ci réew mi dana la recruter waaw xam fu ñu nekk. baykat bu nekk ma créer la marché Sénégal baykat yi lu seen problème mooy lan parce que baykat laa su ma ko waxee mën ngeen ko gëm. transformation balaa loolu da nga am marché mooy problème bi déggoo lu ñu fay baykat yi deux cent et quelque lañ leen fay amuñu marché bu njëkk mooy amuñu matériel bu ñu bayee joxuñu leen opportunité yu ñu bayee joxuñu leen ay machine ñi ñuy jox machine yi ñëw fii ci Sénégal ñu ngi koy jox amuñu sax tool politiciens yi ñoo koy séddoo seen biir ak seen xarit yi.